alors mbokk yi xarit yi Bougane Gueye Dany mooy nekk noonu bi yegg ah, moom mi nga xam ni wax dëgg yàlla fi soxnaam jugee tey di soxna moom i kabe mi ngi noonu Bougane mu ànd ak délégation ànd ak famille bi ànd ak ses amis ànd ak ses proches moom Bougane Gueye Dany sol ñu ñëw ci kër gi nga xam ni fi mu war a eh, denc li nga xam ne moo di soxnaam bi soxna moo mi mu baax mi fii ñu koy denc nag moom moo doon këram bu mujj moom borom këram bi mooy mujjanteelu gisante bi ñuy gisante ak moom moom Bougane Gueye Dany moo ñëw nekk noonu di yegg si mbokk yi ñu ngeen koy gisee si image yi mu ànd ak famille bi ànd ak ses proches ses amis ah, war a denc ki nga xam ni moom moo di soxna soxna moom mi sekk mi nga xam ni moom moo fi bawoo tey Bougane Gueye Dany mu nekk noonu di dugg ci cimetière Yoff yi yegg si na moom la ñu doon xaar ngir mën a denc ki nga xam ne moom di soxnaam si di soxna moom yi sekk mi ngi noonu mi ngi noonu Bougane Gueye dugg na ci ci cimetière bi. محمد خير العالمين وسيدتي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 ñu nar ko denc ci këram gu mujj fii ci cimetière bu Yoff di leen fàttali mbokk yi way juróom gu góor di Thione Seck yaa de cela deux ans su ma ñu daal di koy denc nga xam ni moom moo di sëkk yu Yoff alors la famille est a ses amis ah ñu ngi koy accompagner ak ay sikkar mu ngi noonu corbillard bi dugg na ci biir euh, maa ngi seen ci biir nag famille bi famille bi rek ñoom ñoo nekk ci biir euh, corbillard bi ànd soxna moom moom mi sekk mi nga xam ne ñu ngi ko nar a denc euh, ci këram bu mujj oto bii ngeen gis nag oto délégué Amar la moom moo nekk noonu moo it yàgg lool famille bi moo nekk noonu di di dugg soxna moom mi sekk ñu nar ko denc fi nga xam ne moo di sëg yi nekk fii ci si Yoof juróom góor fi la ñu ko denc moom it ñu nar ko fi waajal daal ko fi denc ñu ñaanal ko suñu borom xare ko àjjana ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu fi teew ci mbooloo soo ko xooloo rek xam ni baax rek am solo soo xoolee mbooloo mi ko gunge ci këram gu mujj gii moom soxla moom mi sekk mu baax mi bawoo fi nga war a xam ni rek baax rek am solo ay kilifa yu mag ñëw nañ fi tey ah ay kilifay diine kilifay aada des politiciens ñu nekk ci sew bis bi ay imam ay oustaz gis nañ leen fi tey ci denc gi nga xam ne fi la ñuy denc ki nga xam ne moom moo di soxla moom mi sekk oto yaa ngi noonu di dugg oto yu bëri lool y a trop de parce que nit ki moo toll noonu moom soxna moom mi mu doon koo xam ni wax dëgg yàlla lii rek soo ko gisee war a xam ni nit ku baax la nit la ku yàlla baaxal parce que euh, dañuy faral di wax naan nit bu fi bawee koo rek xoolal ci euh, mbooloo ma na mu toll ci ña koy denc ci këram bu mujj nga euh, ñu mën ci jël ay seede nit ku baax moo fi jógee te dañuy tàmm ci bu ñuy denc nit mbooloo mu takk daal di koy gunge ci këram bu mujj kon mu ngi noonu mbokk yi ñu ngi nii ci buntu armée taxaw ci buntu bi daal di jaale bu baax baax famille bi yëpp la presse aussi bu ngeen gisee ñu bëri fii moom mooy ki fi jugee dafa bokk ci ñun parce que elle fait partie de la presse moom soxna Momy Seck fàttali leen moom mooy directrice générale bu des médias télé bi di rajo bi di internet bi ak journal bi moom Dany Seck bi fi jugee waral presse bi ñëpp tey bàbbeeku ñëw eh, di ko rendre rale hommage ci këram gu mujj gi presse bi yëpp di ko jaal Bougane Gueye Dany di ko jaal famille famille Seck bi yëpp ñoom waa Lekk ñoom ñoom Aliou di leen ko jaal bu baax a baax a baax. Seck mi fi jugee ñu ngi nii tey ci sëg yi nga xam ne moo nekk ci Yoff ci kër gu mujj gi nga xam ne fi lañ ko war a denc moom soxna moom fii ñu ko denc nag eh, wax dëgg yàlla pour mu góor tamit fi lañ ko denc yàggul dara def na rek ñaari at surtumul eh, tey jii moom it taawam eh, daal di fi bap ñu indi ko di ko denc fi nga xam ne moom moo di sëg nekk fii ci Yoff nit ñi bari lool di di seet baax la wax na ko tout à l'heure ñu noonu ngeen ciy gis ay autorité di gis de xam ni duñ leen faral di gis sax lu bëri tey ñëw nañu ngir ànd ak soxna moom sekk mu baax ni ci këram gu gis ngeen oto ba léegi ñu ngi dugg oto ba léegi ñu di ànd moom ci këram gu mujj moom soxna moomu sekk mi nga xam ni soxna la kii bu waaye tamit mooy taaw ci ki nga xam ni moom moo di sunu yaay jaaga moom it ñu koy jaale bu baax parce que yaay la ci presse waaye tamit yaay la ci Sénégal yëpp parce que ñëpp yaay jaaga lañ koy woowee ak ci yaayam moo ko waajal sang ko euh, mu doon loo xam ne image yu émouvant image yu triste la ñu noonu mbokk yi nit ñi ñëpp daal di ñëw Ah, di ko di ko gunge ci këram gu mujj moom soxna moom ñu sekki mu baax mi ñi ba léegi ci buntu yoof ñu nar ko denc ci këram gu mujj moom soxna moom yi ñu ñaan sunu boroom yàlla na ko jégal te xaare ko àjjana barke yonent ba soppeem ba moo ko tey de moo ko awal nii nag il fait partie de la famille di Mandiaye sekk di rek ci Wally Ballago Seck moom nag kenn du ko wax lan moo waral sa teewaay fii Mandiaye ñu ngi lay nuyu di la dëfal di la wax si gil digaale yàlla na sarax bi yàgg seen loxo na yan kàddu ngay njëkk a yëkkati tey euh, jëmale ko ci ki nga xam ni moo di soxna su baax soo su jóge fi tey waaw ñu sant yàlla jul ci yonte bi sant suñu ñaari waajur ñu ñaan ñu ñaan suñu mag ji di moom yi yàlla xare ko àjjana ya gën a kawe waaw ndax mag ju baax la woon mag ju ju ju ju amoon ful la am fayda bëgg boppam te it yërëm ñëpp bëgg ñëpp man ragaluma fi mu jëm parce que parce que bu dee yàlla xol rek lay fay ak jëf ju baax kon moom feesal na ko dell waaw vraiment ñu koy ñaan yàlla na ko yàlla xaare àjjana yow mi nga xam ne rakkam nga euh, moom ban ban façon nit la woon man gis naa ni nit ku discret la euh, nit ku effacé la du fës du feeñ donte am na moyens yi feeñ sax mais nit ku ku nëbbatu la yow mi nga xam ni magam nga euh, ban nit la. ñu bari mun ñoo xam Papa Thione Thione ku doyoon waar jur mën naa jur lu ne Thione Seck waaw waaw waaw nañ ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw moo ñu guddal wax ji sax. waaye waaye yal na yal na yal xol yëpp tooy vraiment te xol yëpp tooy na sax wax dëgg yàlla waaw jërëjëf. ngay mujjee diggante ak moom ngeen wax yéen ñaar. waaye li ñu message vocal wala téléphone. seen ci fee la ñu mujjee gisante cité kër góor gi. ma doon def benn bannaanoos. Mhm. seen TV. bi ma ko woowee téléphone. dana ma ñëwal fekk ma bureau directement. te bi ma ñëwee. ba dëgg yàlla laajuma dërëm te mënoon na ko def vraiment mu nekkoon ku ñu doon jàppale yal na ko yal na ko yàlla xare na waaw bàyyi nañ nañu bàyyi noonu nañu bàyyi noonu jërëjëf